ndajeb conseil interministériel ngir waajtaayu examen yi ak concours yi ci atum 2023 2024 fukk ak juróom-ñeent ci ay dogal lañu daal di teg ci taabal ji ngir examen yooyu di CFE certificat bi BFM bi ba ci euh, bac bi ak concours ya muy àndal mu daal di nag jaar yoon nee ñu fu ñu koy jaarale mooy fexe ba euh, épreuve yi nga xam ne dinañ ko yóbbu ci euh, gox goxaat yi ñu mën a ànd ak kaaraange bu mucc ayib fexe itam ba centre examen yi ak personnel yi nga xam ne dañ leen war a dajale yëf yi daal di nag yemb wax nañ itam ndox mi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ci barab yooyu courant bi nga xam ne itam dañuy fexe ba def ko hors délestage mu bañ di fa euh, coupé euh, ba ci aaru itam ci wàllu euh, ndoxu taw yi bu ko defee période examen yi léeg-léeg mu tombe ak nawet premier ministre sàkku na itam ñu daal di teg ay matuwaay yoo xam ne eh, dinañ daal di ràññee eh, élèves yi nga xam ne bindu nañu ci examen yu CFEE te nag amuñu pièce d'état civil. ay digle yi nga xam ne jàpp na ne buñ ko doxalee mën na joyanti njàng mi ki nga xam ne mooy euh, mooy secrétaire général gouvernement bi di Al Aminou Lo moo wax ci turam ñu déglu ko ak Denis Sam. tey di samedi 18 mai 2024 premier ministre yi seen benn ndaje bu ñuy tuddee conseil interministériel boo xam ne ni ministre yi ko. yëpp yi ci yi mu concerne ñëpp a ngi fi woon ak partenaires yi dogal yi ci génne lépp lu jëm ci épreuve yi ñu yóbbu ko ci gox-goxaan yi ak def ko ci noo xam ne ni nu am sécurité la ak nu ni aaree aussi centre d'examen yi wax na ministre éducation nationale enseignement supérieur formation professionnelle ñu ànd kook waa armée bi ak intérieur collectivité territoriale ak transport fexe ba lépp luy jumtukaay yu nekk ci région yi wala nekk fii Dakar ñu boole ko man ko féetale lu jëm ci yóbbu épreuve yi ci anam yu am sécurité ak également centre d'examen yi ñu aar leen ak ña ba nee na tam ministre yi mu concerné ñu fexe ba centre d'examen yi ceet ga ca war a am ak ni mu war a euh, pare mu pare ko mbiru ndox mbiru courant ak surtout fexe ba vingt-sept centres yi ñuy wax ne ñoo xam ne ni am na day am mbënd wala ndox dafay taa ñu fexe ba lu mel noonu bañ a am ren incha allah li jëm ci examen yi nag buñ ca tolloo wax na ministre éducation nationale mu ànd kook ñi mu ko war a seqal ñépp ñu bàyyi xel ci xale yi nga xam ne ni amuñu kayitu juddu nga xam ne dañ leen a bàyyi ñu def épreuve bi mais mbir mi mën na leen a dabaat ci kanam ñu fexe ba def ay jumtukaay yoo xam ne ne xale yooyu yépp danañ jël seen tur ak li ci ànd lépp pour que bu yëf yi jàllee ñu seet nu ñuy régler problème boobu mooy pour ñi ren ñiy def examen bi mbiru xale yi nga xam ne ne élèves yi nga xam ne ne seeni dossier jëluñu ko pour li jëm ci baccalauréat wax na ministre éducation nationale enseignement supérieur ñu ànd kook ministre intérieur ñu xoolaat mbir yi pour que ñi nga xam ne seen dossier yi mën nañ ko ubbi waat ñu ubbi ko balaa examen bee jot Euh, ci la ñuy daal di desandi ak moom ndax euh, li aju ci mbirum état civil yi nga xam ne jafe-jafe la euh, moom ilimaanu jëriñ yi daal na ci rek yey yàbbi jàpp ne ne loolu xel nangootu ko ay élèves yi nga xam ne dañoo war a def examen waaye bu ñu amul kayit duñ ko def jàpp ne ne at bi sax daanaka téeméer ci ay candidats yu war a def bac mbir mi laal na leen ak yeneen yoo xam ne war nañ tollu ci juróom benn junni war a def BFEM ak yeneen ñaari juróom-ñaar fukki junni yoo xam ne eh, CFE la ñuy daal di nag def loolu nag mu jàpp ne faw ñu indi ci saafara premier ministre nee na eh, noppi na ngeen ñu def ay coppite yoo xam ne ci wàllu programme bi dafay daal di am waaye itam fexe ba làkk yi ñuy nàmpee ci mim réew ñu dugal ko ci wàllu njàngameek njàngale mi eh, ci xibaaru tubaab yi di ngeen ko daal di teewlu li aju ci wàllu système bi nga xam ne moom la ñuy defee lii di payoor interministériel boobee ba tey ne système la boo xam ne dafa yàqu ci atu atum 2000 euh, ba tey ndax yorin li nga xam ne moom lañ ko daal di yore waaye itam liñ ko daal di seetali ay nag euh, pàcc mu jàpp ne jafe-jafe jooju ñu ngi koy jàngat jamono ji ci naka la état bi di daal di def ba daal di soppi mbir moomee ci ganu xibaari tubaab yi moom Ousmane ko dina ci euh, daal di dellu si ci ci nu mu gën a yaatu assemblée générale bi yoon ci wàllu santé hmm, foofe ca diwaanu Kaolack syndicat autonome supérieur yu santé di santé di SATSUS ñoom nag dajaloo ay ma dajale ay membre am euh, def ab euh, ndaje ci fukk ak ñeenti région yu euh, Sénégal la ñu bëgg mooy fexe ba la ñuy wax reclassé waat techniciens yi yëngu ci wàllu santé yokk itam at bi nga xam ne moom la ñuy demee retraite juróom benn fukki at yi ne ñu yokk ci yeneen juróomi at fexe ba itam ci seen payoor yi ñu daal di koy nag joyanti ba ci li aju ci seen wàllu nag ndàmpaay jëmee ci technicien intérieur yi ndaje ba ñu ngi koy amale ca diwaanu Kaolack ki nga xam ne mooy Oumar Boun Khatab Sow mooy yore wàllu revendication yi ca SATSUS ñu déglu ko ak Birama Ndiaye. bi njëkk mooy euh, reclassement wu technicien supérieur yi. si hiérarchie A2 ñu war a jógee hiérarchie euh, B2 dem hiérarchie A2 loolu nag dafa nekk injustice boo xam ni depuis 2012 ñu ngi koy dund naam am nañ ci ay jéego. yu favorable parce que quand même euh, am na ay jamono yoo xam ne état bi déglu nañu ba nangu loolu ba génne décret boo xam ni daf ñuy euh, reclasser ci hiérarchie A2 boobu bu ñu defee benn formation boo xam ne ci ñaari at lay toll euh, ba pare loolu nag formation boobu ñun def nañ ko ba am na ñu bëri ñoo xam ne jot nañ seen diplôme am na ñoo xam ne tamit jotaguñ seen diplôme loolu aussi rafet wuñ ko ci ci état bi particulièrement au niveau du ministère de la santé lu ci mel ni biologiste certifié ak yenn diplôme yoo xam ni problème signature yu ñu juum wala ay problème bindu tur yu ñu juum rek lañ ci def boobu ba léegi mu bëgg def ay weer loolu aussi ñi ngi koy ñaawlu loolu moo waral nag léegi eh, ñu taxaw fii di xool loolu lan lañ ci war a def tout le temps nag ñun eh, dañu nekk benn eh, corps syndical boo xam ni li ñuy privilégié parce li ñuy gàll suñu mbàgg moo bëri parce que ñi fi toog ñëpp soit dañuy faj ay bët dañuy faj ay bëñ bu ñuy opéré ñoom ñoo leen di nelawal bu yax yi amee problème ñoom ñoo leen di dàmp ñoom ñoo leen di jubbanti luy analyse lépp luy rajo ñoo koy def lépp luy feebaru rajo ñoo koy def fépp foo xam ne ci Sénégal nag fépp fu médecin mënul egg ñoom ñoo fa nekk di ko doxal donc moo tax bëgguñu di banque suñu loxo pour di jàmmaarloog état bi ci yenn ki mais nag suñu wa wareef nag suñu àq ak suñu yelleef bëgg nañ koy jox saa su ne loolu nag moo waral ni affaire bi dafa yàgg li ñu laajoon yépp nga xam ni bu dee décret la génn na bu dee formation def nañ ko lépp génn na léegi nag li ñuy xaar mooy ñu reclasser ñu à la hiérarchie a beneen bi si topp mooy tamit euh, gis nañ ni techniciens supérieurs yi même bu ñu demee retraite ca jumtukaay yi leen doon jëriñoo dañ leen di jëlaat di leen fay ay ati ay ati at at léegi nag comme loolu am na muy autorité étatique yeeg yépp ñoom dañu leen di jël di leen continuer leen liggéey bi parce que wax dëgg yàlla amu lu leen remplacer comme loolu am na nag mën nañ ko defe ci beneen anam maanaam ñu yokk âge retraite bi jëlee ko 60 ans yóbbu ko 65 ans Euh, ñu daal di rek desandi ci wàllu santé bi ak organisation bi nga xam ne mooy wuyo turu renouveau euh, syndical ba fare ci Thiès dañoo daal di nag taxaw hôpital Amadou Sakhir euh, Ndiéguène bu Thiès hôpital régional ba ci jébbal leen nag ay poche deret ay fukki fukki ay poche yoo xam ne daan nañ koy dajale bésuk tey gile ñoom nag jàpp nañ ne public bi faaw ñoom it ñu daal di def ay yu bésu yu ñu jagleel wàllu paj mi yoo xam ne gratuitement lañ koy daal di nag def maanaam ay journée médicale gratuite euh, mbirum décisionnaire yi nga xam ne nag ñoo nekk ci kuréel gi daanaka yitteel na leen ñoom kuréel gi Thiès Babacar Ndao bëccëg fàccado fay dara syndicat bii di organisation pour le renouveau syndical ORS section Thiès wane beneen xar kanam ay Guène Niang mooy secrétaire général section Thiès ORS syndicalisme ñëpp xam nañ ni humanisme la d'abord yëg sa moroom dimbali sa moroom jàppale ko ba ñëpp am jàmm ci loolu la ñu am partenariat ak banque de sang bu hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène ngir alimenter euh, hôpital bi euh, don de sang def ay consultation jàppale population yi mais jàppale sunu l'hôpital régional El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène bu Thiès foofee jàpp na ne at bu jot banque de sang bi dafay faral di ñàkk deret ba tax na xalaat yu mel nii ñoom dañ koy rafetlu bu ñu sukkandiku si Assou Diouf banque de sang bi ñi muy jox dafa bëri nekkul kese hôpital bi bien vrai que ci biir am nañu ay services yu bëri yoo xam ne ñoo leen di jox mais au niveau régional ñi nga xam ne ñoo nekk si euh, hôpitaux environnants yi ñoom tamit dañ leen di jox raison pour laquelle à chaque fois dafay nekk en rupture mu si yokk ne tey jii lu ni mel war nañ ko lawal si yeneen kuréel li ñu def nii bu ñëpp ko doon def tey jii nii banque de sang bi gëm naa ne du am rupture parce que ñëw nañu indi population bi ñëw avec motivation pour aider la banque de sang jàppale ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk en besoin vraiment acte boo xam ne ñun ñëpp dañ koy rafetlu ñaaxaat ngeen ñaax seen yeneen collègues yi ñuy def ce genre activité yi. ndaje naam maye deret wayit fàcc askan wi organisation syndicale amal ka ñu ñaaxaat nguur gi lenn si seen ay jafe-jafe rawatina seen ñooñ ñu tuddee ay décisionnaire ay de Guène secrétaire général ORS section Thiès. ñu leen jàmp mooy nañu lijjanti mbiru décisionnaire yi jàngalekat yooyu ñuy wax décisionnaire nekk ci biir jàngalekat yi te niroowuñu niroowuñu ay traitement loolu lañ leen wax nañ ko lijjanti nu mu gën a gaawee ngir ñëpp mën a jublu ci liggéey bi liggéey bi daal di gën a ñoŋ di fàttali at bu jot l'hôpital régional El Hadj Ahmed Sakhir bu Thiès dina soxla lu ëpp juróom-ñaari junni poche deret terewul loolee du doy ba tax na bu ñu gisee initiative yu mel nii ñoom dañuy tàccu Babacar Ndaw Thiès Sud FM su FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ñu dem ca diwaanu Popenguine nag téeméer ak ak juróom benneelu édition pèlerinage marial bu Popenguine jiitu réew mi daal fay nag amal nemmeeku euh, àdduna jëme nag ci euh, li nga xam ne mooy soloy bés bi sàkku itam ñaan ñu daal di koy rek euh, def jëme ci Sénégal rawatina nag ci nguuram moom nag saafonte nag ki nga xam ne mooy monseigneur Benjamin Ndiaye ngir mission boobu ñu mën cee daal di am ndam ñu dem ba Popenguine fekki Moustapha Sall. Veuillez un Sénégal de justice, un Sénégal de paix, un Sénégal de prospérité. Merci beaucoup, Monseigneur. yu ne mel la ki nga xamante ne moom mooy njiitu réew mi daal di yëkkati jëmale ko ci waa jàngu bi président Bassirou Diomaye Diakhar fay toog ci wetu Monseigneur Benjamin Ndiaye di sàkku ay ñaan ngir Sénégal gu jëm kanam am jàmm ba ñëpp yëg Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. La fête de Pentecôte ferme un cycle de grande spiritualité qui part du carême de la fête de Pâques en passant par l'ascension jusqu'à la fête de Pentecôte même. Donc une période de forte spiritualité où des milliers de fidèles viennent partager des moments de ferveur spirituelle et de solidarité qui sont essentiels pour le devenir de notre nation. mais un moment à l'occasion duquel chrétiens comme musulmans montrent et démontrent au monde entier que la diversité est une force. Cette diversité que nous considérons comme une force et que nous donnons en exemple au monde entier doit être entretenue par l'engagement soutenu de l'État aux côtés de la communauté chrétienne. njiitu réew mi de yi mi ngi dalal xelu ñi nga xamante ne ñoo jiite jàngu bi. di xamle ne liggéey bi nga xamante ne door nañ ko ci bërëbu jàngu bi di sanctuaire bi lee dana ko yeggali ci programme bi nga xamee ne moom lañ ko jagleel la. Monseigneur, je viens ici en témoignage à la reconnaissance que j'ai pour la communauté catholique. Je viens ici en ma qualité aussi, principalement de président de la République. Je viens aussi pour constater et apprendre avec vous tout ce qui doit être fait et tout ce qui reste à faire et qu'ensemble nous puissions identifier les priorités du moment et surtout les meilleurs délais de réalisation et de finalisation de ce formidable édifice. Monseigneur di kilifa diine gi bi mu jëlee kàddoom daal di àddu wax ne dalal ganam gile di jiituma réew mi feddali ko kóllëre wane mbégteem ci ñëw gi nga xamante ne ñëw na fii ci Popenguine di ko wax ne ko tamit ñaan gi moom ñi ngi koy def ngir mu am ndam ci liggéey bi mu sumb Moustapha Sall fii ci Popenguine ngir Sud FM. ñëw desandi ak moom moom président Bassirou Diomaye fay laata mu fay dem nag demoon na foofee visiter si ca Fiara bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Ndakaaru fukki fan ak juróom-ñett jàpp euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru euh, mais bi muy ñaar fukk ak ñeenteelu édition bu Fiara bi moom nag euh, def na yenn visite ci ay stand waaye itam barab yi nga xam ne yu am solo la saafonte na itam ak acteurs professionnels yi nga xam na ñu yëngu ci wàllu eh, mbéy mii wàllu càmm gi ak naka la ñuy rek soppee produit yi bàyyeekoo ci bànqaas yooyu occasion ci njiitu réew mi mu daal di dellu siwaat ci eh, li mu nas rek ci politique bi mu war a tëral ci wàllu eh, mbéy mi ñu déglu ay kàddoom moom Bassirou Diomaye Faye ak Ismaïla Massa yaakaar naa ne sama politique dénk ko koo xamante ne mën na liggéey bi mu dem di waxtaan ak ñoo xamante ne solution mu ngi ci seen loxo man am naa yaakaar gu mag ne loolu buñ ko boolee résultat yi ñuy séen dinañ ko am mi dañ ko am ci transformation tamit parce boo visité stand yi nga xam ne ay jàmbaar dëgg ñoo fi nekk te li ñu jot a def rek wane na ni ñii ku leen gunge ci li ñu soxla dinañ la jox yow li ngay xaar ci ñoom kon ci tànk yooyu lañ taxaw ren gi bu ngeen xoolee am na ñett biir yoo xamante lu jara seetlu la mooy li ma njëkk a wax dem nommé koo xamante ne woo ko parce da doon politique kese mais dañ ko nommé parce sax du politique waaye dafa nekk loo encadrer paysans yi coopérative yi ak développer coopérative yi moom lañ la dénk mu ñëw di feelu si ministre bi nga xamante ne moom la dénk wàllu mbéy mi muy changement institutionnel important bi ci tegu mooy ñu ne gannaaw loolu ren la ñuy door def suñu première campagne agricole donte bu ñu toogee yàggul ñu ñu def ko parce que en mois de deux mois lañ ko def indi nañ innovation boo xamante ne tax na engrais ren lu mu doon jar daaw wala ñetti at yi weesu ren lay gën a tuuti ci njëg te leen ren lay gën a bëri ci li nga xamante ne moom lañ nar a teg sur le marché jox ko béykat yi ci wàllum engrais muy ji yi dañ ciy boole arme arme ren ak gendarmerie pour que mu bañ a am ñoo xamante ne dañ ko téye ci yoon wi ba mu tax du egg ci béykat yi ñu ne lu ñuy dimbalee béykat gi dafa war a dem ci béykat biy béy ci tool bi waaye warul am kenn koo xamante ne dafa nekk intermédiaire ci digg bi téye ko ba ba du egg ci béykat kon changement yi teg ci man sant ko ne ko demal waxtaan ak acteur yëpp nga jël temps bi war nga bañ a déglu rek say service waaye nga déglu ñu nekk sur le terrain am jafe nga laaj leen naka la ñuy saafara seen jafe ñu wax la seen pexe ñu ne leen nag nañu réformer la loi sylvo agropastorale mais ñu def ko participatif maanaam ñëpp wax ci bu ñu dawalee at tegaat suñu budget defaat lu ñu am yéene def ci mbéy mi bu ñu toogee évaluer nañ xam ndax ñun ñu ngi ci yoon wi wala nekku ci yoon bu ñu nekkee ci yoon wi ñu gën ko baral bu ñu nekkul ci yoon wi ñu gën a pour tegu ci yoon wi te baral tànk yi parce que sénégalais yi loolu la ñuy ñun te yàkkamti nañ trop parce que jafe-jafe yi tar daal di dis nag dikk ci eh, jamono nawet gi nga xam ne mu ngi jege si foofee ca commune bu Kolda ñu ngay daal di nag jël matuwaay yi eh, lépp loo xam ne itam mën nañ koo gàttandoo wàllu taw gi ñu def ko bokk na ci wàllu curage yi ñuy def nag eh, di setal gi wàllu caniveau bi waaye itam jumtuwaay ya muy daal di àndal yitte yi bi itam bokk na ci ñi nga xam ne ñoo daal di occupé na mu leen neexee rek bërëb yi nekk ci wetu fleuve